Santo ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di woo yoof gépp li ko dalee euh, yoof euh, tóngoor ninaat nëngaañ ngappar mengen njere laayen bàyyuma kenn bokkuwaar bàyyuma kenn koo xam ne yaa ngi dëkk yoof bàyyuma kenn maa ngi woo ñoom ñëpp di woo waa Kayar di woo waa Njar bu baax di woo waa Touba Massamba maa ngi koy woo bu baax mu may ñaanal bu baax yaa ngi may dégg mu ngi may ñaanal bu baax maa ngi oo képp koo xamante ne ay ñoom Ibou Dia ñoom ñëpp sëñ góor njar maa ngi leen di woo bu baax di gërëm Assane Ndiaye bu baax di gërëm Matar Ndiaye mi nga xamante ni mooy suma manager wa dëgg yàlla jàmbaar la Assane Ndiaye jàmbaar la yaa ngi dégg di woo ñëpp koo xamante ni ku ma wowul rek man damaa juum di woo gaayam ndax tey dama dégg kii mu wax wax ju garaw maanaam loolu dafa baax si làmba ndax nee na moom ay tikkeem jeex na ba pare parce que day bëgg a jëlaat yeneen si Assane Ndiaye parce que ñun loolu la ñuy ñaan pour am loolu dañ waxante dëgg parce que yoof nañ génn parce que ki ñuy bëreel bëgg na combat bi mais gënuñu ko bëgg ñun nañ génn ñu jënd ticket yi ñu ñëw booy ñëw esaat xajuñu esaat ñun. mais booy dañuy bëgg a ñëw sax saa dañuy am problème ay ay yooyu. maa ngi oo ñoom ñëpp yoof buñ xaar kenn si kenn gin di la woo ndax li nga bokk ak li nga boole du benn benn ñaata saam ñaata du benn. maa ngi gërëm moom mii li muy wax ni ndijaayam ay yoofaax yooyu noonu. garaawul daje naa fa booy bi nii. mais man yooyu far ñeenteewu ma. billaahi bu ma daje woon ak moom sama gaale dama koy nuyu dalal ka maanaka toogal. man du ma ragal loolu du dara si man ci Serigne Bamba di la waxal ni sawaay waay di ko wax ni carrément moom mii nii gëmal ko naka affaire yi dara du si ñaaw parce que booy bu baax la booy bu yaru la dara du ñaaw combat moo ñu boole rek bu jeexee jeex na waaw kañ dañuy jaay suñu bis daal jaajëf kontaan ah. jaajëf waaw. comme gars yi ni ngeen ko xamee rek tamit lii nii maanaam jotaay bi li tax mu jar rafetlu mooy lamb tey dafa soxla lu mel nii quoi cadre bu mel nii parce que tey mbër yi ñëw nañ ci restaurant presse café toog fi. wax seen ay soxla te déggoo fi benn kàddu bu débordé parce que loolu moom la ñu war fexe prôné ko muy liy am parce que te tamit waruñu fu waaw waruñu fu ñu nekk rek ñu di ah, ñu garder wala nangam war nañu mën a def affaire yi mun naa te kenn du fa nekk maanaam police du soxla police du soxla kii ah. champion nuyu naa la Tonnerre ziaraat naa la bu wér a wér Babacar nga jëm ci combat pour le 5 mai stade Iba Mar Diop sa diggante Guine bu Yoff tey actuellement nii looy yëg parce que ñu ngi ci presque semaine combat bi ah waaw instant bi li may yëg rëy na trop bu doon tey tey ma bëri waaw bu doon tey tey ma bëre waaw di santaat yàlla bu baax nag di julli ci yonent bi di woo suma waa dëkk bëgg naa ñu feesal stade bi waa Colobane suuf pont ñëpp maa leen di waa bi waaw di woo waa Colobane gi yëpp rawatina sama mag nag sama lépp am na solo Pape Konko sama mag ki nga xam mooy son ci man chaque jour di ma solal di def lépp daal ci man gin lu koy daan jin li koy daan mooy entraînement bu woor rek liggéey te loolu def nañ ko mhm. def nañ ko wax dëgg si yàlla pare nañ daal yéen ñaar bu ma laaj mu dàq bëri loo may wax. ma ne la moo dàq bëre. waaw moom jiin moo dàq bëre. waaw di sant sama gars yi ne ci biti nag ñoom El Hadj ñoom Saliou gars yi. mais côté xeex bi dama dégg dafa mel da nga ne ñi mu xeex ak yow. non du xeex ak man moom dafa jàpp ne man damay def bataay bataayu ma ak jiin. Hmm. parce que tonnerre de ku ne xam na ci li mu jógee. Hmm. waaw hmm. te lambu fa la mais ku daanu rus. ku daanu rus waaw. am na looy moytu ci moom. jiin ah. aw ma lenn lu may moytu ci moom bu arbitre soufflé hmm. déedéet hmm. aw ma lenn lu may moytu combat man naa gaaw ah moom de xam naa dafa moom comme li ma la rek bëgg na mbiiloo mbaaloo awale fale jàppal fale bàyyil fale combat yàgg yooyu moom bëgg na ko moom da nga ko koy may wala doo ko ko may ah du ma ko may jiin xam na loolu sax hmm. xam na moom kuy bërëk tonnerre ah war <laughs> mi génne rek yaa ngi si seen yaa ngi ci kawam moom xam na loolu sax xam na comme du taxaw du taxaw dina gaaw lool lool lool kontaan ci yow waaw di bëggewaat gars yi may jàppale bu baax. jaajëf waaw ñoom Moussa Yeri maa ngi leen di xaar ci ceeb bi ak diw gi. jaajëf waaw la ñëpp ñëw baax a baax. di sant sama doomu ndey Koña de sama rak. jaajëf. champion bëgg naa la. waaw nañ la Babacar. ba am nga jàmm. naa jaam bu baax. Ah, sa waay dama ko laaj mu ne doo xeex ak moom ñu ngi ko xeex ak yàlla xam na ni sa waay waxi signature rek. ngeen taxaw ñun ñu taxaw ay mbokk am taxaw mais yàlla xam na ni Clédor xeex xaman xalaatu ko sax xelam sax joxu ko loolu li mu bëgg man xam naa ka bu baax. lu mu bëgg moom xeex ma ko wax mais après yow di nga comprendre li ma lay wax di yaa nga làmba ja après li wax di nga comprendre bu baax si moom bataille psychologique la may teg parce que bëri naa mbokkaam bëri nañ sama combat bi passé dañ koo seetaan ndax jour signature bi sax ñu ngi ma koy wax ay mbokkaam ñu ngi nakaan gin bu yof combat bu yàgg la ma ne combat bu yàgg la ma ne bu ko nangu affaire yooyu noonu parce que kon loolu mu ngi siy bàyyi xel xale booy entraîné da ngay entraîné pare pour lépp man loolu laa gëm. man mbokkam nga bëreel. Euh, booy puy. ñu bëri combat ñu bu métti ba lampa yi fay barki Serigne Bamba ñoom ñëpp taxaw di yuux parce que ñoom xamee nañ ma loolu xamee nañ ma loolu c'est parce man su ma làmb mësul yomba du benn buy yomba bu may ñàkk a bu may am laa yemale su ma làmb benn du si yomb moom nag loolu la xam moo tax tey muy teg ay bataille psychologique yow xam nga li ma lay wax bu baax. kon daf lay pièce nga bëgg a wax. ma ñëw dal ci kawam dal bu baaxul mu am nu mu demee man. mais du demee noonu de lépp dama koy bàyyi xel bu baax a baax baax moom xam naa li mu bëgg a def bu baax. même dégg naa ci waxam mu yaa ko dàq bëre. ah non yaa dàq rek damay naaguloo bëre bi lépp dama koy jël jox ko ko moom li man li may carte moom loolu lay carte parce que moo tax moo tax mu ne man maa ko dàq bëre tey moom mënu ma nax ci côté boobu doonatuma xale si làmb. am na looy moytu ci moom. ah feneen bi non wax dëgg yàlla buñ waxee dëgg rek te yàlla tax bu gën taxawee takka ngembali ba taxaw dongali. daw jaagar jaagar yi taxaw arbitre bi na prip amatuma lu may xool si moom barki alxuraanul karim dul tëral ko dem loolu rek laay gis. kontaan ci yow waaw mais nag maa ngi woo waayoo bu baax yéen ñun dañoo kontaan si yéen yéen ñii. parce que li ngeen di def nii am na solo trop. barki alxuraanul karim da ngeen di fekk ay mbër yu ndaw di leen taal di leen tegal lu ne man lii laa gëm journaliste yi da ngay oyof bul xeeb kenn àdduna noonu la fii kenn tëbul tëb tëb rek am li ngay am mais ni ngay def nii asagaay ñu ngi leen bu baax kontaan nañ ci yéen bu baax. dama koy seetaan YouTube chaque instant nag billaay wallaay saa caaxaan de suma connexion chaque jour si lay jeexee mais affaire lii la quoi c'est parce que ñëpp foo mënti gis ay ñoom Modou Lo ñoom Yékini ñoom Balla ñoom ñëpp fii lañ commencé ah ba dem tey benn instant tale sax bëgg leen a gis day doon lu jafe mais adduna moo mel noonu fii lu fi tàkkee naka taal dañuy nangu loolu mais nag di woo waayoof gépp di oo nur kër yëpp di oo met boo suma booy benn booy la bu nekk ndar day sonn si man lu ne la may defal barki alxuraanu karim di woo plongeurs yi di woo waa gi di woo mool yëpp nag bàyyiwuma kenn na ñëw la cinq yi ñëw feesal stade bi ma bëmbës si suuf yéegal mu jóg. Ali ñu lay ziar Ali Samb. waaw maa ngi lay fay. di wax ne yow ay parrain wu la 5 mai bi journée Assane yi loo ciy wax. waaw li ma ci wax daal mooy sant Assane rek gërëm ko delloo njukkal gi may delloo njukkal di ko def. ngir man di ko def ngir ak mbokk ak xaritoo gi nu ànd bu yàgg ba léegi maa ngi ko ciy delloo njukkal man it di ko wax jërëjëf. bés ba noonu la ñëwee dimanche le si le 5 mai. waaw bés ba moom ni ma war a ñëwee mooy ñëw ànd ak waa Bawol gi nga xam ne fa laa juddoo ànd ak waalo gi nga xamante ne nii fa laa diggante Njaw ak Njàngeeg Richard Toll ak ndakaaru gi nga xamante ne nii teraanga gu fi am man ak Assane fii ko amee nga xam ne ñoom ndakaaru moom danoo mën produit ndax balaa ngaa mën a xam local bu baax dangaa xam importe boo ñamee importe ngay mën a xam local bu baax looloo tax waa Ndakaaru képp koo xamante ne nii yaa ngi fi yeewu te jële fi teraanga rek na ngay ñaanal waa Ndakaaru waaw. solo kon daal ban ban moo tax bi may militer ci politique sax damaa ñëw militer biir Dakar Plateau ndax rien que rek bëgg leen a delloo njukkal bokk ci parti bi ñuy wax APR waaw Alliance pour la République. président Macky Sall ñu ànd ak moom ci politique boobu ba léegi te rëcc wuñu ci dara di lancer président de la république un appel solennel nag pour président mu recevoir jeunes yu mel ni assan Ndiaye ndax ay facteur de développement lañu ñoo xamante ne ni ñu ngi jàppale jeunesse bi am ay projet de yoo xamante ni projet jeune la te président bëgg ne dafay créer emploi des jeunes. Assane maa lay ziar. Babacar maa ngi ziar bu wér. le 5 mai stade Iba Mar Diop Guine bu Yoff ak ki nga xam ne moom mooy Tonnerre 2 bu Ndakaaru nga tudd drapeau bi monsieur Ali Samb. waaw jërëjëf Babacar euh, le 5 mais ñi ngi koy waaj ci anam yëpp ci combat yi niñ ko tànnee si amateur yi niñ ko bëggee noonu lañ koy defee le 5 dimanche ku ñëw Iba Mar si kàttanu yàlla di nga gis leneen te ay journée espoir la espoir yoo xam ne dañuy duy stade ba mu fees dell si kàttanu yàlla. jox ñëpp rendez-vous foofu incha allahu rabi dinañ gën a wane suñu bopp ci organisation bépp pour amateurs yi kontaan wan sénégalais ñun ay amateur lañ moo nekk si ñun mbir nag boo koy liggéey da nga koy bëgg soo ko bëggee ba pare da koy man soo ko mënee ba pare na nga koy jox axam di ci sonn xam li amateur yi bëgg nga koy teg mais doone làmb làmb rek tëgg ay booy rek nangam nangam dem non da koy jox axam ci sponsor yi nga jox leen seen ak amateur yi nga jox leen seen aq bu bis baa nga xorom ba mu saf sap làmb ji di neex am combat yu fay ñëw présenté wu fa pour le 16 incha allah. Euh, ticket yi mën nga ñu si ñëwal rek ci côté billet yi pour amateurs yi mu leer si ñoom daal. waaw amateurs yi euh, dañuy sama xarit man mille laa ko def mille cinq 5000 kon loolu tàggatoo la buy xam ne suukaru koor la daal ni ko Sowru Fall di waxee. <laughs> waaw Gora Tyson 2 na gënal ko ci leeral waaw Gora Sock Tyson 2 euh, wax naa ci sànq RFM dootuma ci wax ci ab rajo su ma ci waxee ci site bi nii anyway pare naa ci ah euh, Gora Sock Tyson de bokkutoon sax ci samay plan teg naa samay plan saison bi yëpp tëgg naa li ma war a tëgg mais dama toog ay nit woo ma proposé ma combat bi ne ma vraiment gis na li ngay def euh, ku bëri ci sa combat di ci gis sa bopp mën nga ci jaare avancé ma d'accord ñu wax ak man ay modalité ma d'accord dem taxawal komba bi euh, Tyson 2 jot avance ma war ko def ci Boy Bawal Boy Bawal marle ñu ne ma euh, ñu woowaat ma ne ma Tyson góor waa góor soog yi duñ bëre ci ginnaaw Tyson de euh, Boy Bawal marle ma ne leen amul problème yéen a ma ko wax yéen a ci génnaat amul problème après nit ma wooyee noonu la ñu wooyee Fallou Fallou sama rakk la sama xarit la su ma tëggan combat bi sax mu ñëw soxla ko ma jox ko am nañ ci ak mat am ci fulla ak fayda waxtaan ci ba déggoo mu tëgg ko amul problème bi muy dugg ci làmb fàllu ñëw na ba ci man ne ma suñu référence nga suñu idole nga dañuy dugg ci làmb ma ñaanal ko wan ko ni ñuy def kon du ma toog mukk ci àdduna di xëccook fàllu ay komba jamais de la vie yaa ngi dégg sama xarit la sama rakk la te ba pare dañoo am association tënku ci bokk ndey bokk baay kon duñ xëccoo ay combat ay nit mën nañu jéem a jaxase nag man ñoo bëgg boole mais du du nekk fàllu semoon na mi sama rakk la sama xarit la su dee taxawal na ko yàlla na ko ci yàlla jàppale may ko ci xëwal li ñu nekk yàlla suturaal ñu ci may ñu ci xëwal mais daal li ma leex Babacar woor baaxul nit lu muy wax nay lu mu man nit lu muy def nay lu dëggu ci moom parce que dëgg mooy jëkk te mooy mujj waaw samay journée day ris ci culture ci safal ci ambiance lépp sant yàlla macha allah comme wax naa la sànq ne la làmb da nga koy bëgg da nga koy man da nga koy jox ak xam loolu rek mooy secret bi bëgg naa ko macha allah mun naa ko dama koy jox ak xam lépp lu ma war ci làmb ji dinaa ko def ñaan yàlla daal bis buñ dugg rek buñ ci jógee amateur yi ne moo dàq. maa ngi fekk la 5 tonnerre gin bu yof maa ngi fekk boy bawol marle maa ngi fekk ton euh, double moteur fëga la te journée buñ jub dinaa ci def combat yoo xam ne bépp amateur bu ñëw esat di nga dund làmb vrai tàllalaat sénégalais yëpp loxo ñu ñaanal ñu li ci suñ xol ñu eggale ko si jàmm ci barke Serigne Saliou damay nuyu ñi nga xam ne internetu Lutte TV ñiy suivre Lutte TV ak fu ñu mën si àddina bi ak Leewtoo TV di leen xamal ne daal ñun on est ensemble concurrence amul suñu diggante jamais au grand jamais yaa ngi dégg kon moo xam pap Thialis Faye la wala muy Ibrahima Faye Beuz ñoom xam lu ñu mën a jàppaleem yombal ñu ñun suñu liggéey sur le terrain parce que nag ñun ñooy wàcc terrain bi te olof ne na bonaata xam la ca dégg ba moom may nuur ba ca ban ba encore une fois di leen ziar bu baax a Beuz Beuz xam nga li may wax Pape Thialis xam na li may wax